asalaamaaleykum mbokki xarit ñu seetaan suñu émission Thiès Info diine fii euh, ci biir Thiès Info ak Thiès TV ñu ci ànd ak l'éminent professeur islamologue oustaz Ibrahima fay nekk kenn ci nga xamante ne rek ñëpp gis nañ ni muy taxawoo diine ji euh, fii ci biir euh, Sénégal rawatina ci Thiès bi nga xamante ne fii lay yëngu tey nag dañu ñëw rek def ak moom benn jotaay bi nga xamante ne ab émission bu yàlla mu ñëw nag ci benn question boo xamante ne li nga xamante rek mooy miraas miraas boobu tamit buñ ci waxee ba noppi daa ñu ñëw rek ci li nga xamante ne toujours mooy la ñuy wax. doom bi nga xam dafa judd ci yoon wareefam ak lekk li nga xam ne mooy ay cëram ci wàllu miraas mais également doom bi xamante ne judduwul ci euh, yoon euh, kooku lan la chariatul islamiya wax ci moom euh, ci wàllu yooyu yëpp daañu ci indi ay leeral ak oustaz Ibrahima Faye parce que dégg nañu yenn waxkat yi wala boog yenn waaratekat yi di yëkkati ay kàddu maanaam doomu ëmbal sax la ñuy wax ne kooku warta donn warta jiite jumaa warta jiite jàkk warta tudd doom warta takkub sëy li ni mel tey oustaz Ibrahima moom lañ àndal oustaz Ibrahima salaam dañ lay bàyyi nga nuyoo ak mbokki xarit ñu seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan yëpp ci ci Thiès ak Thiès TV ñu ngi leen di nuyu di dalal bu baax sunu mbokk yi fi ñëw di sëñ Omar eh, ñu bari apprécier la ci sa taxawaay ak sama njaboot bee Adama eh, di ñaan sunu borom subhanahu wa eh, yi ñuy wax mu doon njariñ ci lislaam Mm, te bañ a doon jafe-jafe ci umma bi. wala oustaz dañu ñëw rek euh, ci laaj bu njëkk yi maanaam miraas lan mooy njëriñam. waaw xam nga miraas moom njëriñam dëgg-dëgg mooy eh, joxe alal seeni borom ndax bu jëkkoon dañ ne wax ni jigéen kenn du ko miraas euh, maanaam bokkul ci miraas dañ ko war a miraasaale alal la sunu borom daal di ñëw sotti say leeral ko. ni góor ñi am nañu seen part ci jigéen ñi tamit am nañu seen part ci kon ginnaaw euh, góor am na paaram ci miraas jigéen am part ci miraas kon dafay war day mën na ne miraas ñi ko séq mooy bu nit faatoo bàyyi ndey bàyyi bàyyi bàyyi soxna bàyyi doom kenn ku nekk am na cër ca loola wala mu bàyyi yenn ci yooya wala mu bàyyi yu demee noonu ci wetu ndey wala wetu bàyyi miraas dafa yaatu ndax junniy masala la ak ñeenti téeméer ak juróom-ñetti téeméeri masala boo demee ci axkaamul miraas dana ko leeral xam ne junniy masala la ak juróom-ñetti téeméer kon dafa sew ah, nga xam ne suñu borom moo ko séddalee noonu nit bu fi bu fi bàyyi ko ah, li mu am ah, boo demee ci miraaskat yi dañuy wax ni tëdduwumu la kii faatu liñ ko njëkk a war a defal mooy taj taagi mooy taj waajal ko ba keroog ñu koy denc ci alalam sàng ko ak lu ko yóbbu ak lay kes baax ma ba ca tamit mooy adduyuun mooy bor yi bor yi mu bàyyi ci alal nu ñu ko war a fayee ba ca desaat mooy ay alwasaaya ndénkaan yi bu fekkee génnul ci yaru alal ja bu mujj ba mooy almiros mooy ñu séddale alal ja ña alors euh, ci ñàkk moom nag euh, tey bu ñuy wax parce que dañuy ne dafa am doom yoo xam ne dañoo judd ci yoon am doom yoo xam ne tamit donte sàkk wuñ ko dañoo judd rek ci li nga xamante ne toujours mooy euh, du yoon maanaam du ay doomu yoon maanaam bu ñu ne doomu yoon rek mooy ki nga xamante ne maanaam mun nañ na ci mooy ci la juddu kon yàlla nañu yàlla jéggal li ni mel dafa ëlëm xel yi parce que ñenn ñi dañu naan kooku du donn du jiite jumaa du jiite jàkk du takk sëy mu nekk rek ki nga xamante ne moom dañ ko mettre à l'écart de la marche de la société islamique te ñu mel ni rek bu ñuy wax ci wàllu droit l'islam alquran li mu jox doomu aadam bi dafa mën sëkk oustaz ñu bëgg rek nga leeral ñu foofu. waaw xam nga soo gisee ma tax jamais jamais ci l'islam amul mën nañ cee tey ndax l'islam dafa yaatu xam-xam dafa sew kenn ku ci nekk maanaam booy wax ci charia na nga bàyyi xel ñeneen ñi nga xamante ni. yéen a bokk làng gi te ñu gisee neneen te noonu it charia euh, bañu ko ndax dafa am ci lan doom yoon xam nga naka jekk ñun dañuy condamné fermement maanaam ak mooy ndax suñu borom subhaanahu wa taala nee na bu leen ko jege ndax innahu kaana faaxisa wa saa sabila lu ñaaw la yoon wu ku ko tobbi tobbi nga yoon wu bon euh, yàlla xaraamal ko maanaam jote jigéen bu bu boo xamante ni demuñu ca jàkka ja wala fasuñu ko daal waaye nag bu fekkente ni loolu dafa am ba pare nga xam ne ak mooy la ak mooy koy tuddee koy kenn kenn kenn kenn du nuyee lu xaram la léegi nag doom ja ca juddoo euh, lan mooy lan moo koy xaar aadama lu ma ta xel la dafa am ñu ni du doom wax dëgg yàlla teg ko fu leer fu demee ni ñenn ci mazhabu imam malik du ñëpp waaye ñenn ñenn ci mazhabu imam shafii rahimahullah ñenn ci mazhabu zahiri yi ñenn ci mazhabu uh, abu xanifata waaye du ñëpp ñu ni du doon ndax dafa juddoowul ci ak guum lu juddoowul ci guum du doon am ñu ne aha kañ day doon li tax muy doon mooy anam gi mën a doon ñaari anam la euh, lii may wax ma demee ci euh, ci mazhabu Abu Hanifa te leeral nañ ko ñenn ci Malik leeral nañ ko boo demee ci nu Yasaar bokk ci borom xam-xam yi gën a mag nga xam ñoom ñoo jàngal ñi jàngal ñi jàngal imaamu Malikin ak seen i wax na ko boo demee ci Seexul Islam Ibnu Taymiya borom xam boobu wax na ko demee ci ibnu Qayyim al-Jawzi wax na ko ibnu Sirin wax na ko euh, ñu bari ci boroom xam-xam yi eh, wax nañ ko ak téere yi ñu ko waxee eh, ibnu Taymiyya wax na ko ci juróom-ñeenti fatawa yi bokkul juróom-ñeenti fatawa yi bokkul ibnu Qayyim wax na ko ci euh, téere buñ na naan Zaadul Maad ca xaajum ñaareel ba ci page quatre cent soixante-dix-sept soixante-dix-huit boo demee ci axkaamu nasab bu Cheikh Mouhamed Saadi wax na ko ci soixante paj soixante pages waaw leeral yëpp mazahib yëpp aara gisin yëpp daal ni doom ja mën naa day mën naa doon doom juy doon na nu muy doon nag bu fekkente ni ndey ju ko ëmb moo naan sama doom ji diw mii moo ma ëmbal diw moo ma ni ah man la loolu mooy al iqraaru sayyidul adilla maanaam keray ni maaree jërul ay seere kon dañ naan doom ji am am am baay la bu fekkente ni nag soxna sax nekkul ci guum moo tax dafa am benn xadis bu muy demee ci ay immatul xadis dañ koy wax mooy alwaladu lil firaasi wa lil aahiri al xajar daal ni doom ka takk ndey ja mooy borom doom ja waaye nag kaw feneen mooy moom dañ ko war a raj moom bu ñu ko war duma duma ko bu ko waree rey rey ko waaye nag bu fekkente ni jigéen ju amul borom kër la ëmb mu leer ni sama ëmb bii diw mii moom ëmbal diw moomu ne axakañ ah man la te keneen taxawaatul ni ak man xam ne kenn xëccuwut ak moom ëmb bi kon doom yu doom ju am bàyyi la bu bàyyi ba faatoo da koy doon bu faatoo bàyyi bi da koy doon ci ngir yii ma wax ca eh, ay kilifa yu bari wax ko Ibnu moom wax ko surtout Seexul Islaam Ibnu Taymiyya leeral la ko ci lu bëree bëri Ibnul Qayyim al-Jawziyya ku ne xam ndax boroom xam-xam yaa ngi koy nattee ci eh, borom xam-xam yi nañu gisee borom xam-xam ay nattuwaay la xam-xam ay nattuwaay la bari na ko ñaan xam na fekk tàmbalee wul ay nattuwaay la eh, li ñu bind ak fi ñu aw ci cursus ci wàllu xam-xam ak li ñu def ci wàllu charia ak tom yu ñu bind te eh, université yi gën a mag. ci àdduna bi di ci référé ko loolu la ñuy natt borom xam-xam te ñooñu te ña ca gën a xóot la ñu bokk <coughs> daal di ba ca desaat kon anam ñaari anam yi bu amul kon bu fekkente ni diw nee na man mii doom ji sama dooma maa maa awak waajurum bu jigéen fu dul noonu reconnaître naa ko ba mu sosu ci te keneen taxawaatul réclamer ko ni man am naa ci wàll bu boobaa dañ ni doom jo doom jo am bàyyi la bàkkaar ba nag dafay des bu fekkente ne charia mooy dox ci réew ma du lu kuréel wala ab union wala ab mbootaay def dafa am loo xam ne état islamique bu fa nekkee dañ naan bu ñu ko waree duuma dañ koy duuma moom góor ga ak ku jigéen ka bu ñu ko waree raj mu rey ko sànni ko daj moom faatu ñu koy def bu fekkete bu fekkee état islam amu fa nag na jéggalu man taaba taaba allahu alayhi képp ku jéggalu te mu sell yàlla mën na laa jéggal ndax sunu borom moo waxoon rasulullah yi نيغو بسم الله الرحمن قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا يوم محمد وقال سما جامي تون تن بوب جاب ندي من نجيكر بكار بو جيفن يالله كو جيكر من نجيكر بو كوب دا يالله جيكل جيكلا كون شيك نيت ني ما نيو خامني اي جام لا نيو يالله يرجل يا بو ليغي مو ياتي كم ورا لك مو خام كم ورغول اجنا مو خام لغي نك واي تكسي نك دا فاي نك لغي لو مل نون مسلم Euh, euh, ibnu ibnu ibnu Qayyim leeral na ko ci Zaadul Maad ne dafa am benn jigéen du ëmb im bi daal ni sama doom ji nit ku baax kii moo ko jur te fekk kooku aram bañ ko demee di ko tuuma ak di ko laaxaan kilifa googu dafa euh, dafa julli ñaar rakaa daal di joxoon doom ji na ko kuy sa bàyyi mu ne ko sàmm ba sàmm boobu lañ ko bàyyee leen mu ngi ci Zaadul Maad xisatu ju rëy leer leer dina ko ci fekk euh, bi ci desaat tamit mooy euh, jigéen ñëw nañ ci rasulullahi alayhi ñu ko sama dañ ma sama ëmb euh, dañ dañ ma dama ko yàtt bi ni ko demal ba ëmbi demal ba nàmpal demel waaye ba mu ñëwee da ci moom yoon góoru ñëw na mu att ci yoon kon nit bu ñëwee ni kii ko ëmbal wax bi jeex na voilà kon laam-laam amatu fa hmm. kon doom jooju doom ju am bàyyi la waaw ci ñenn ci boroom xam-xam yi ñu demee ni ñii ma lim te seeni téere nekk fi ñu mën leen a joxoñ ni diwa ci barab sàngam la ko waxe waaw surtout nag boo demee ci axkamu nasab fi fiqhil islam yi waa Cheikh Mouhamed Assaïd boroom xam-xam boobu ak boobu 60 pages la ci traité 60 pages waaw ci wàllu woowu rek. waaw parce que euh, effectivement dañuy gis ñi nga xamante ne dañu ne sax euh, amuñu bàyyi seen santu ndey lañ leen di santale. xam nga doom ju amul bàyyi mooy ci alxuraan te it mu wax la min alif ilaa yaa ci ci ci amul fenn fu yàlla àddooni doomi njaaloo du doon te alxuraan moo amu ci waradul leexaan la tudd lan mooy waradul leexaan mooy ki nga xamante ni dafa am borom kër ëmb borom këram mi ëmb bii wala doom ji juruma ko dañu bokk waatoo mm. bu ñu bokk waatoo ko ne araamal la aram na moroom ma du ñu àndati te doom jooju du doon nu bàyyam ndeyam lay doon loolay wala du leexaan day fekk nga am borom kër ëmb wala nga am doom borom këram bi ni borom këram bi doom ji juruma ko mun la yaa ko jur mun juruma ko bu boobaa da ngeen di waatoo boo leen xasee ba waatoo nag sëy ba lay yem te loolu mën a àndal doom jooju nag du doon bàyyam ndeyam lay doon doom jooju mooy doonu ndeyam euh, est-ce que ci wàllu jiite jàkk wala juma wala taksi wala tudd doom wala sax jàng alxuraan doom jooju lan la ci chariatul islamiya wax. waaw doom jooju dafa mel ni tey tuuma juñ ko teg wala luñ ko teg rek tooñ day daal di dikk ndaxte indiwu fi boppam te jëful ak mooy moom doom ji doom la joo xam ne nit la comme nit yëpp. am na ci yenn fo comme imaamu imaamu daari la ci jër imaamu Malik dafa ni mën naa nekk imaam waaye du nekk imaamu ratib dañu laajee borom xam-xam yi gaw imaamu Malik dañ ni. li tax imam malik wax ko moy bu fekkente ni ñamuy jité xam nañu na mu sosoo xëy du ko sànni ay traque ci baat lolu la ko éviter way du tee mën naa jiite imaamu Maalik imaamu Maalik moom tam wax ni wuté ci borom xam-xam yermandi la al ikhtilaf bayna al ulama rahma bil umma wala lil umma manam yermandi la kon bu fekkente ni eh, imam malik wax na lolu eh, yenen ñi ci des ñepp ni man na jité doom ju set wécc la jo xamanteni ni lu mu jëf ndax eh, tay ji bu fekkente ni dañ koy dugal sawara ci lolu wala ñukay xagn dara ci lolu kon da fay melni la yalla waxon kon am nañu koy bëgg wéti wetti yalla da fa ñewon woon bismillahi rahim wala taziru waziratun wizra ukhra ken du bàkkaaru sa bàkkaaram mo sa bay lu la jégué jégué jégué la mu def ci bakkar mom mom la lo jégué jégué sa doom la nga def ci bakkar yow yalla neen kenn du bakkar sa bakkar mom te deful dal kon dom ja man na jiti jakka juma ci li ëpp ci borom xam xami te mu leer man man na tuddu dom te nit nit lañuy nit ñepp la war ñepp ko war bu xamé te man na doon lu nekk ci lislaam man na doon lu nekk ci réew ndax deful dara ay wajurum ñoo def foofu tamit dafa am benn texte usul yi bi ñuy wax moo xam te ni mboolem ñu yëngu ci wàllu usulul fiq dañ dañ koy bàyyi xel daal di ni innama yunkaru lmuttafaqu alayhi wala yunkaru lmuxtalafu fiihi li ñuy bañ mooy lépp lu borom xam-xam yépp dëppoo ni waaw loolaa dañ bu boobaa dañ koy dàq waaye nag lu am lu ñu ñu waaw ñi ni déet bu boobaa yow yaay seet bala ci jubu julli bee xool ba ko ci gën a jege te doomi njaaloo ndax dana doon wala du doon lu wuute la kon muxtalaf la ah du muttafaq muxtalaf fii léegi nag yu xollit man ajaz léegi nag yaay seet ke la gën a jubu nga ak moom parce que dafa am loo xamante ni ci l'islam boo demee ci usul dañ koy jàngale ci ñetti ñetti xaaj la dafa am mu nazal mu awwal mu baddal ñett yi ñetti wax yi ci lislaam tegu sëñ Omar bu njëkk ba mooy al mooy lu yàlla addu mu leer rasulullah addu ca mu leer bu boobaa maa fi si labs amul lu ci lënt ba ca desaat mooy mu awwal mooy taxi yi euh, kii di ko dégg ne kii dégg ko ne bu ko defee yow yaay seet ba la ci jugu nga topp ko parce que l'islam gën naa yaatu a may alors euh, très bien ci wàllu dugg aljanna bi ñu bëri ñuy wax nii dañ koy teg diggante li nga xamante rek mooy aljanna ak safara ci laaraaf foofu lay nekk ci diggante bi mu mel ni rek euh, ñenn doomu aadama yi ñoom dañoo toog rek ci place yàlla pour àtte. waaw xam nga ki dugg aljanna ko dugg safara moom yàlla ko xam euh, nit xamu nit daal bu fekkente ni tooñ nga defu ko boo liggéey yàlla du ko ca teg dara tooñ ngoo def ko xam yaa ko sabab sa bopp. ndax suñu borom wax nag lu leen dal ci nit ci ci nit ci yéen doomu aadama fa bi maa kasabat aydi naas kon lu nit fàggu ki la yàlla yi dugalee àjjana wala sawara waaye lu lu nga feeñ ci rek yow bu ñu ciy dugal àjjana kon yaakaar naa te yàlla ku maandu la sunu borom moo ni maa digle inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan kon loolu day mel ni daa tuxu kon doomu njaaloo doom la comme ñëpp. yàlla yóbbu ko àjjana bu mooyee yàlla yàlla mën ko yóbbu feneen wala mu jéggal ko waaye nag naan bu jaamoo yàlla sawara la jëm. maanaam maanaam bu jaamul yàlla safara la jëm bu jaamul yàlla laaraaf la jëm loolu fu ñu koy teg. ak ah, ah, ah, waaw ko ni eh, bu leen di bu nañuy wax nit ñi naan bu ñu naan am na ñoo xam di teg ci ala madahib al arbaa bu dé man ala al madahib rek lay lay lay wax ci ci ngorum ci di diine yi fiqhu dafa yaatu ba ca dessat tamit ñaare euh boy àtte ci sharia wala ku àtte ci sharia na tenir compte manam gisinu borom xam-xam yi waaw bañ tenir compte ci ben gisin rek parce que l'islam gën naa yaatu kenn wala ñaar ginnaaw gën naa yaatu kenn wala ñaar te yàlla wàcc ci rasulullah la ko wàcce waaye wàcce woo ko ci keneen waaye nag ku am jàmbaar góorgóorlu ba nekk mujtahid sa say wax sañ nañ ko bàyyi xel waaye nag à cent pour cent it tee ci daa baax parce que jamono day dox xam-xam dafay évoluer waaye damay faral di wax nañu ci bari dañ leen war a def naan recyclage parce que aussi dafa am loo xam ne li sam dafa am ñaar dafa am ak it ak mustajaddaat lu variable ak lu invariable Je vais me le rendre plus chanceux, je vais me le rendre plus chanceux à tout moment. bien mu mel ni tey bu ñuy wax rek euh, oustaz leeral nga question boobu muy ci wàllu euh, li nga xam ne mooy miraas mais également ak euh, doom bi ñu wax nii doomu jaaloo la ba boog sax dugg ko safara mu bëri nag ci ñi nga xam ne rek dañuy wax ci rajo yi wala boog di wax ci télé yi wala réseaux sociaux yi mu nekk wax yoo xamante ne toujours day nekk wax yu waroo sax chariatul islamiya bañ koy bind ñëpp xamoon nañu coow li bëri na mais buñ demee ca cappaandaw ga rek ñoom ñëppay daje ci benn baat wala tënku ci benn mazhab du dëgg kon li ni mel tey dañuy wax oustaz bëri tey yàqu-yàqu jamono ñëw nga gis ab euh, borom kër bu yàlla nattoo mu tëdd njabootam dañ ci gis cas yu bëri ay viol suivi de grossesse ci ay xale yu am fukki at ak juróom fukki at ak ñaar euh, ci beneen wàll wi tamit bu ñuy xool ci wàllu code de la famille maye na tey ku am fukki at ak juróom benn sa doom bu jigéen nga maye ko mu dem sëyi li ni mel tey ñu gis ni euh, ñu bëri ñu ngi wax ni euh, dañoo war a téye xale yi bàyyi leen ci njàngu nasaraan bi ba ñu am seen i lijaasa ñu doog a dem yi mu mel ni rek fu mu toll nii nekk na ay jafe-jafe ci wàll yooyu tey oustaz en tant professeur di islamologue lan nga ciy àddu waaw li ma ci àddu mooy jigéen moom bu matee jigéen maanaam li waral mu mat jigéen xamees na ko mooy adiya walla mu gis la ay mag li mag di gis walla mu sax karawu naq yooyu day wane ni kon majeur na kon képp ku majeur eh, l'islam terewul pour ñu maye la waaw ku majeur l'islam terewul pour ñu maye la ku majeurul sax l'islam terewul wax waaye bala ngaa dugg néeg nga fexé na nga majeur parce que dafa am lo xamanteni xam nga lu xel nangul islam nangul ko parce que at bi dama ci ñew manam dañu ne xalé bu jigen bu amé juroom ñent at rek mën nañ ko mayé ci islam mën nañ ko mayé juroom ñent at naam sax ni dañ koy tagat ci kër ga pour yar ko jox ko yi njaboot gi ba mu am manam ba mu gis mbax ñu do ko jox euh, borom kërëm mu jëbale ko. waaw <coughs> xam nga lolu ñen ci fuqaha yi wax nañ ko li tax man la fi fiqh dafa complexe. trois niveaux la ah trois niveaux la ci ñu koy jàngale euh, am na ci loo xamante ne xëy na boo àggu ci niveau bu kawee ba doo ci kenn du la ci euh, collé motif mais li xel gën a nangu li xel gën a nangu te l'islam lu ci bare bëri dafa dëpp xel ndax diine xel la ak xeltu ndax sunu borom bu naan afala taaqiluun afala tatadabbaruun yaa ulil albaab yaa ulil absaar borom xel yi lay waxal kon ñaare gone bu majeurul euh, mayee ko yóbbu ko kër xel nangu ko te lu xel nanguwul lu ci bare bari samtu ci ànd waaw ndax jigéen dafa am fu cër yi àgg fu mu mën a àttane kër ak euh, li ñu naan yoru biir ñu ngi tudde ko rapport am na foo xam ne bu fa àggee du ko àttan mooy waral li ñu naan kii kat dañ ko violé am yoo xam ci jote jox doxee faatu jigéen bu cër yi matul te li waral cër yi mooy yii ma wax mu sax karaw fu mu fu mu ko daaw fu mu ko baaxul sax saxe wala mu gis ay cycle am yu demee noonu ñu xam ni kat cër ya mat na kon buñ ko mayee euh, duñ ci am daan kon li may conseil ñëpp mooy balaa kenn mayee sa doom euh, mat jigéen na jigéen te bu ko mayee mukk lu ko mu bëgg ndax ab sëy mariage forcé dafa xaraam ki la bëgg tay nga bëgg ko daganul ay fo nga am consentement ak ndaw si parce que neuf sëy daa xat koo bëggul mënoon mënu ci nek mënu ci nek ak moom kon d'accord nañu ci sharia ñu maye jigen way nak ci mu and ak mu war and ci diine ba pare mu bëgg ñetteel ba it mu mat na waaw jël sa doom jo xam tane eh, da tollu ci dal nga maye ko boo ki lu la ca dal sarsu yu mi mën na condamné euh, charia mën na la condamné parce que am na ñoo xam ne dañuy jaay rek wala ñuy wanteer waaw nit kenn du ko jaay kenn du ko wanteer ndax amul prix euh, euh, dañuy laaj benn laaj maanaam ki nga xam ne parce que dañ koy gis léeg-léeg nga gis boroom kër bu seytaane man mu dem tëdd ak doomam su mun na nekk doom bu mu jur wala mu nekk doomu jiitlem kooku bu faatoo est-ce que doom jooju mu fa jur day doon wala du doon. waaw xam nga dafa am loo dafa salte dafa loo xamante ne suñu borom da ko xaraamal maanaam ci ndax nit du denc ndeyam du denc doomam ah. eh, loo koo xam ne nag doo doo denc sa ndey doo denc sa doom am na loo xam ne jëf yi bàyyi ma la yenn bàyyi mi sax duñ ko duñ ko def loolu um, fa danger àgg fa la tàmbalee waaw tëdd ak sa doom loolu maanaam jëf yi bàyyi ma pire la. te loolu l'islam da koy condamné fermement fermement ndax loo xam ne mooy l'islam dafa xaraamal diggante bi waaw lu l'islam bi nag lu ci sosu musiba la nan ngay gisee yow nga naan bàyyi sa sa sa doom sa doom ni bàyyi kii ki ki kee di loolu da dafa ñëpp dañu ko war waaw waaw lu salte la dama jàpp ni ñi koy def nattu la rek nattu la ndax nattu xeeti nattu yu bari daam yooyu nag bokku na ci natt yu gën a doy waar waaw benn lu xaraam la lu salte la lu seexlu la te nitewul moo tax ñaari am na ku ma mel ni bokk mu fi ñëw dama laaj digganteem ak borom këram ak ñuy war a man kon ñun sunu rôle du jàngale diggante nit ak nu mu isee sunu rôle mooy fexe ba nit nitee parce que nit mu nitee dana man lépp mm-hmm. bu nitewul du man dara kon sunu rôle mooy fexe ba nit ñi ci am na ci loo xamante ni eh, loolu yéen ñi yéen a ngi ciy bay seenum laaj Thiès info ku ne xam na ko ci àdduna bi ñaari fu mu wàcc ci àdduna bi dañu laaj leen ci àdduna bi àdduna bi yoon bi ma mujj tukki nii rek ñaari eh, bokk ya man eh, woon ak liggéey yi ñu doon def te lépp aju ci xam-xam ak ay téere yu ñu doon mool ak yu ñu doon kii ñi ngi ñi ngi ñi ngi rafetlu waaw it wax dëgg yàlla Euh, ni ngeen di yaatale xam-xam parce que xam-xam ab géew la da ñi ko seq dañu daje ñu waxtaan kenn ku ne la nga am ngay indiku waaw waaye jamais jamais ci charia hmm. parce que xaram ay ay niveau la dagan ay niveau la hmm. waaw ay ay niveau la waaw parce que yu bokkul la hmm. yu bokkul la ndax ay ay degré la bi bi dafa nekk cent degré bi nekk cinquante bi nekk soixante bi nekk soixante-dix bi nekk cinq pour cent bi nekk zéro moo tax euh, surtout euh, doomu njaalaw yi nga xamante ni mais am na ñu ci xaru am na koo xam ne dama ko ersan la ma fekk ne ma euh, réew maa ngi toj ma am na dañ ni ko ab ouvrier sax ñu war a miiras ba ñu ko doo doom yoon doo doon fa daa génn dama xaru ji eh, eh, am na benn kilifa ku baax kuñ na docteur hmm, Mouhamed Ghadban am na ku ñu naan Mouhamed Saadi uh, bind na ci ay téere yu am solo ci ni nañu jëfandikoo aay boobu yàlla di wax naan wasolu xayr maanaam yéwé ne moo gën loo xamante ni bu feeñee bakkan tëdd nga fexe ba nëpp nëppal ko bakkan ba ñu tëdd axafu darar da axafu dararay ni naa ñaar bu taxawee ñoo xam ne lii boo ko boo ko waxee bakkan tëdd fa mi tas noppi hmm. waaw maa ko waaw ah ba rafetal ginnaaw ginnaaw arxafu dara rey ni nag xool ba gën a ba gën a ba gën a jàppandi parce que charia Omar dafa am li ñu naan mabadi u charia ak maqasidu charia mabadi u charia mooy yi ñu def jullee góor yi ak yi koy jàngale maqasidu charia mooy bu xóot bi bu profond xam nga lan mooy maqasidu charia mooy li l'islam li ko tax a dikk mooy jëlbul manafia ak daful madarat mooy yëpp yuy jariñ ñu indi ko ci pénc mi luy lor ñu dàq ko waaye loo xam te ne boo ko waxee pénc mi tas du charia waaw du charia waaw waaye loo xam boo ko waxee pénc mi defaru charia la kon loolu boo demee ci ma maqasidu charia mooy jalbul manaafi maanaam lépp luy jariñ ci ab fami fexe ñu suurewu bu fekkente ne dañu taaboo du ko te bàyyi ba reconnaître ko ndey ji ni moom la mu utul koy kayit bàyyi ko ca man miraas yi may miraas yëpp ba bu yàggul kuñ may kuñ dama naan ñu ñu jur ñu ni diw ak diw ak diw ana këyit ñu ni mi ngi ñan ñan ñooy soxna yi ndax bàyyi na fi ndey wala bàyyi ma miraas na ci ñoo xam ne miraas ni dañuy taskari yi jàmbur yi bëri na ñoo xam ne miraas ni dañuy séddale waaw waaw te lu ni mel day nekk ab euh, kii boo xam ne day fekk borom ci bàmmeelam day fekk borom ci bàmmeelam nga xawi suturam xawi suusas bàyyi nit ñi ak ay mbokki nit ñi te yàlla dafa bëgg ku suturaal nit ñi képp ku suturaal nit ci àdduna yàlla suturaal ëllëg moo tax rasulullah am na benn xadis bi ñuy wax nii dafa ni képp ku def ak mooy yàlla su yàlla suturaal ba kenn xamu ko suturaal sa bopp boo ko kenn xam te jéggalu sa borom bañ cee dellu ndax boo suturaalee sa bopp yàlla mën na laa suturaal waaw. Mhm. waaw waaw ma ko ndax suñu borom moo teral doomu aadama xam nga yàlla bu la teralee bu tëddil sa bopp bu fekkee ne jëf nga ak mooy yàlla suñu borom suturaal suturaalal sa bopp léegi boo suturaal sa yàlla suturaal la waaye nag ña lay taxawu nañ la suturaal waaw waaye naan diw fekk bàyyi ba reconnaître na ko jàngal ko utal koy këyit ba mu ne xulit ni gën nga naa ko doo doomi yoon lu xew yow waaw lu xew yow te it te it charia euh, surtout suñu jamono yii ñu nekk fexe nag ba ba maanaam alxuraan mooy téere bu dul weesu téere bu dul bopp day weesu yi nga téere yi nga gis yëpp ban nañu téere ñu jàng fekk weesu na yàgg mm-hmm. waaw parce que amatul maanaam durée de validité bi dafa expiré léegi nag fi mu nekk nii xam nga euh, maanaam euh, maa koy wax ñenn ñi may jàngal ci Ndakaaru ak ci Thiès surtout ñu nekk ci enseignement supérieur bi maa ngi leen ciy wax di lañ ci former sama kem kàttan ci réew mi ak biti réew ak jotaay yi may def maa leen ci wax man leen xam-xam nanguwul mos da ngay maq wala nga ba waaw te it bul jël benn pàcc rek ni lii la am na ñeneen ñu xalaate neneen te ay jullit nañ yow ndax boo tuddee baatu séeréer ñu tudd ko boo jullee ñu jullool ndax la julli ba pare am neen ñu gisee ba pare teg ko argumenté ko mu leer mu leer léegi nag loolu ñoo nooy def ak ñoom ñëpp nee nañ doom njaaloo day doon bu fekkente ne bàyyi ba reconnaître na ko bu fekkente ndey ja amul borom kër waaw ku amul borom kër ba pare njaaloo ni damaa njaaloo waaye kii laa njaaloo ma jur doom ji mu ne waaw mën a doom ji am bàyyi la ndey ja ak bàyyi ba def nañu bàkkaar waaw waaye dañuy doon bele bi. très bien waaw. donc hmm. li may tëje rek mooy hmm, euh, li li ma waxoon léegi rek ci aima gi ndax ñoom ay ay mushahid lañu shahidun lañu yoo xamante ni seen dund yëpp dañ ko jox xam-xam euh, ba yàlla dogal may leen ci pàcc wu mag wu rëy. ndal la kon ñun ñi nga xamante ni ñooy dongo yi te séq daara ji ku ci nekk la nga xam man ko indi ci daara ji rek waaw tamuy jariñ ndax xam-xam bu coow bàyyee dëgg réer waaw te te naka jëkk xam-xam coow bokku ca ay gëstukat yu avéré bind bind mu leer ña leen jiitu ñu ne diw la comme ni ma wax ci Cheikhul Islam Ibnu Taymiya dundum gépp amul soxna amul doom soxlul dara li mu bind mm, la tuaddu wala tuxsa bu nee du day doon loo ci man ibnul bu nee day doon loo ci man ibnu yasaar bi nga xamante ni aima yii ñuy wax ñi leen jàngal ñi leen jàngal ñi leen jàngal ñoom ñoo leen jàngal bu nee day doon loo ci man waaw waaw dàqantiwut nag bu fekkente ni ñeneen ñi dañ du doon da nga ànd ak ñoom am nga ci droit waaye nag ñi koy doonalee it am nañ ci droit waaw kon eh, xam nga liñ naan yaatu dënn bokk na ci eh, nangul ka nga jàkkaar lool ay gëstu te boo demee fekk mu ne leer nañ ndax am na benn boroom xam-xam bii ma wax nii dafa ni lii la imaamu Malik ni wax lii la Shafii yi wax lii la Hanbal wax nii na lii nii la Ibnul Hazm xal laa wax nii la imaamu jaafir rahimahullah wax waaw man lii laa wax li tax mu wax lii mooy jamono day dox taarixoon nañ ko war a dëpp rek doom ju am bàyyi la waaye def na bàkkaar bàyyam def na bàkkaar waaye doom ji deful dara mën naa doon imaam mën naa tudd mën naa jiite lu doon man lu ne mën na ko nekk ndax deful dara ndax bu de bu ñu nee def na dara kon lu aaye boobu la ñuy wet di wala taziru waaziratun wizra uxraa yàlla nee na kenn du bàkkaaru sa sa moroom Nah, ndax kenn ta lek sa morom du sour kon mënu bàkkaaroo mo mam ci bàkkaar ya waaw kon dom yi Busen dara ay nit lañ ñu ñëpp bu seen baye faatu bu ñu amé ay kayit dañuy don bu seen baye kon dañuy don dañuy don waaw te loolu bari ci mi nak bari ci am ñoo xamuñu fu ñu fu ak am na ñoo sax bam leen dal la te fi sharia fi sharia xalaati gañi rek fi dox ginnaaw xalaat yi gaañee fi dox nak jéggalul te bañ dellu ànd nag damay ko damay condamné fermement li ñu naan adultère waaw waaw ci forme yëpp ndax suñu borom ne wala taxaru bi dina innahu ko jege waaw te jigéen dafa mat a wormaal dafa mat suturaal parce que ku suturaal jigéen yàlla suturaal la bëri na góor gu xawweeku wala gu retardé retardé wala gu ay moromam ndaw ndax dara jigéen naka ngay wax xale bu jigéen toj boppam naanub yuura fexe ba ëmbal ko bañ ah Adama naka ngay fekk nit ci luppam ndayam nga fexe ba toj boppam naan yuur gi dorajo ko njaaloog moom mu am doom nga bañ ah, ah ëllëg am na de te yàlla te yàlla gëmul nelawul de gëmul nelawul de te lu jërë sóoraale la waaw te ñaare nag doom yooyu ñuy xeeb ñooy faf tekki dara faf sax tekki bari wax na doom doom la rek waaw waaw xëy na judd ba la ñu wuute waaye deful dara ay waajur ma def ay waajurum nag bàkkaar ba sunu borom subhaanahu wa taala xam nga rasulullahi dafa ne alayhi salatu wasalaam moo tax jël ñu nit yóbbu sawara lu wóora di la man léeg-léeg nit def ko damay tiit ndax ginnaaw yonent bi alayhi salatu wasalaam moo na téeméeri bakkan yàlla yóbbu ko àjjana te jaamul yàlla benn bis lan moo gën a garaaw rey téeméeri bakkan demal ci saxiihul Buxaari nettali nañ ko téeméeri bakkan teewul yàlla yóbbu ko aljanna te jaamul yàlla benn bis ci histoire ba kii def na ak mooy kenn du ci ànd ba ñu koy condamné mais bu fekkente ne da ko def nag te amul pas-pas delluwaat ci mukk te sariya duuxu fi du duñu ko jéggalu te bañ caa dellu doom ja mu ne sama doom ali yewén doom ja nooy fexe ba du doon من في خبر دون أم لا يوم مو أي خلاص يو أريه لا أو خلاص يسنج ما هو خلاص لبلن لو بدو بتو خلاص لانكال l'islam lépp daa daa dëppoo xel. waaw maa la ko donc euh, dégg ngeen euh, kàddu euh, professeur Ibrahima Faye di islamologue nekk fii ci Thiès ñëpp xam ko mu nekk tamit ki nga xam day jàngale ci li nga xam ne rek mooy enseignement supérieur au niveau de Dakar fii ci biir Sénégal mais ci ruge ci sous région bi donc vraiment oustaz ñu ngi lay gërëm parce que mbir mi leer na parce que ñu ngi fi tudd ay docteur lañ ñi nga xam ne dañu gëstu ci chariatul mi gëstu ci alquran waaye gëstu ci dundinu doomu aadama li ngay wax fii nekk na loo xamante ne lu leer la xam naa ne ñu koy déglu wala ñu koy seetaan daan ci jëlee xam-xam oustaz lan ngay tëjee. waaw li may tëjee rek mooy luñ ci juum ñu xam ne ci mat ak doomu aadama la ndax jën jël la mën laa yoxuti yàlla moo dul juum euh, bokk na ci grandeur nit boo juumee ni dama juum loolu grandeur tegtal la ci borom xam-xam mooy woyof waaw waaw ci borom xam-xam Cheikhul Khadim ñëpp waaye suuf la daan te ko wax mu déglu la nangul ñépp waaw tey bu nettalee daan diw nee na waaw su fekkee moo ko wax danaan maan yi Seydil Hadji noonu la meloon radiyallahu anhu moom bu kotu bi noonu la meloon ñooñu ki kenn réwu leen waaye dañoo maan woon dañuy wax lañu ñu xam te te indil ko ci sa leer kon ñuy ñëpp ñu ñu ñëwaat ci géew bi delluwaat ci bibliothèque yi waaw delluwaat ci gëstu yi waaw dellu ci xam-xam bi waaw gëstu mu xóot te mu leer

Euh, yooyu yu am solo la jàng benn téere mel ni man nag wala ñaari téere kenn du dégg loolu musiba la xam nga lu sopp mooy nga xam lu bari wax tuuti waaw loolu la ñu sopp mooy xam lu bari wax tuuti jërëjëf dëgg nga ngeen ay kàddu oustaz Ibrahima fay ci li nga xamante ne rek toujours moo lëmbee xel yi askan wi surtout fii ci biir euh, Sénégal toujours rek ci wàllu euh, doomu njaaloo maanaam du donn moom oustaz leeral na ko dina ci ay kaddu yu bëri ne kooku daal day donn ndagam ni euh, baayam ndeyam reconnaître na ni baayam moo ko ëmbal te baayam it reconnaître na te amul kenn rek ku réclamer ne kii ñuy wax ni doomu diw doomu diw sama doom la kon nag oustaz nee na loolu lu leer naññ la na ay borom xam yu ci bind ay page page ay leen di jox dig daje beneen numéro rek incha allahu rabbi